fa nekk gérant yaay ja nag nekk fa actionnaire ginnaaw nag bi ñu leen dégloo ni ki démb rek ci kër yaayam nag bu ñu sukkandikoo rekk ci ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy suñu témoin kii di Adama fay daal nañu koy teg loxo du ñàkk rek dinañ ci ñëwaat ci yeneen jotaayu xabaar bu ñu jógee ko foofu nag dañu àddu rek wax ci kaddu yi tegginewul yi nga xamante ne daal lañ koy yëkkati rek teg ko ci kaw njiitum réew mi kii di Cheikh Ahmed Tidiane li daal dinay porté plainte kii di Azoura Fall ni ki ci talaata ji nag kii di Cheikh Ahmed Tidiane li bu bokk ci coordinateur bu association RAS daal dinay jébbal ab plainte nag jëmale ko rek ci ki nga xamante ne moom mooy monsieur Azoura mi nga xamante ne rek moo doon faral nag di supporter parti Pastef nekkoon koo xamante ne rek doon na jege Ousmane Sonko ak ay drapeau xamante nag daal nañu koy def nag jëmale ko ci boomu ci kanamu procureur de la république ginnaaw rek bi ñu gisee ni rek dafa daal di yëkkati ay saaga yu doy waar yoo xamante ni rek moom moo daal di génnee nag ci gémmiñam jëm ci son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la république bu Sénégal accusation yu nu mel nag ab vidéo moom moo ko daal di dëggal rek boobule vidéo sax nekk na vidéo viral ñëpp gis nañ ko ci réseaux sociaux yi ñu gis ci nag kii di monsieur Fall moom ci jëmmi boppam rek mu yëkkati ci ay kàddu yoo xamante ne rek yu doy waar la ko rek ci ki nga xamante ne moom la ñu dénk suñu institution réew di président de la république ci boobu le plainte nag kii di Cheikh Ahmed Tidiane li daal dinay xam ne rek gravité bi nga xamante rek la dina koy def mu tënk ko rek ci article bu code pénal sénégalais bi nga xamante rek moom day dàq lépp loo xamante rek offense la wala kaddu yi kaddu yi tegginewul ñu koy jëmale rek ci njiitum réew mi ndax nag moom ci jëmi boppam rek am na ay moyens yoo xamante ne rek mën na fësal yëf yi publiquement ba noppi daal di koy yóbbu nag fa mbaxana doone benn wala mu daal di am ab pénition boo xamante ne rek day jógee ko ci juróom benn weer jàpp ñaari at kaso yoo xamante ne mën na ko tëdd wala ñu amaan ko lu toll ci cent mille jàpp nag ci un million cinq cent mille de francs CFA ki nga xamante ne moom mooy lii daal dinay insisté rek ci saaga yi nga xamante ne daal daal dina koy def jëmale ko rek ci njiitam réew mi Macky nekk na mbir moo xamante ne rek kenn bu mu ko bay bayal di ko setan setandal muy jàll waral rek muy sàkku ñu ubbi ci ab enquête yoon def liggéeyam ginnaaw nag moom ci jëme boppam rek bu mu fas yéene preuve vidéo bi nga xamante ni rek ñu ci bëri daal dinañ koy gis loolo wala nag mu daal di déposer boobu les plaintes du ñàkk dinañ ci ñëwaat ci yeneen jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngir mën a am yeneen i xibaar